di la Touba. jóg lay fëgg mbégte mi xol lay tëgg ndem réew mi Bàmba la bëgg kon ku ci sonn sëñ bi fay dëgg. tubaar rek yi dëgg ku ne sañ si li nga gën bëgg dem rek la bëgg kanaan ñu ma samoo ñu fay dëgg defar saag bi yére yi lem. seen café Jalibatu Serigne Ibrahima Touré di lis ak seetkat bu mag bu nekk ci Kër Massar Affaires de grands, vente d'habillement, DSS, exploitation de carrière, location de voitures, terrassement, boutique Hewell, Jane et frères, vente. Tout article de vaisselle à Kermassar. Nyolendimai, Senseri, boutique Olay Ilatuba. c'est Buzz Music. café fof, démb ci guddi laa def ñaari voyage te war naa ko tegaat si taliba gémmantu loolu dama sonni xiif clients yi dama leen siif yokku paas profito lu bëri sa meru xaalis bi si lay giif sama kafe gi tuddul jaliba ana tuggi ci ne nga ne fa ko ba sama turab kafe gi bu ko yàq boo fi dikkate nel jaliba dina la woon ni da ngay dawali dija yaxu rek ci tali bi li ëpp ci jëyee tali bi du kenn ku dul nag yéen chauffeur si waaye yow lu si sa yoon màggal bi soobale ci dugal fa ñu liggéey fii kenn du wax bu ñu buumi waaye lu ci sayon sama ñak nelaw ku la ci duggal ah bu xaliss amé waxuma la tuuba wante man na ko tàllal ba tugal bëgg xaliss bu mu tax nga teele sa jëm ji yow kan nga yap yow teg ko ci yoon ta respecté code bi boy ay bakkan nga dawal kat yi bu nu amé discipline soki mëna baña bari tuba nga juggé nelawoo boy demal tëri mooy yow fa ngay jaay may dawal na ku nekk zéro sa rôle bu mu xasse yek ci tali duma du tank tank tànk tànk sorol wa mom sax animu kan man du lay wër prudent sax tali mani man ni laay wër boo demee amuloo sax pneu secours kirij sa bët yéen ki sa ndong li nga nan ma teg ci biri baal li nga nekkee xamatoo foo féetee booy dee dey beetee bi njëriñ loo fekkee li ñu kaas dafa bëri te kenn waxu si ni lees sama yoon si li ngay wax man na sama oto bi fees client Touba laay wër amul are mu yéeg magal gi njëkkantel te client yi bëgguñu mu yeex yaa ngi nii gisatoo yaa ngi sal booy feeñ na ci sa xol bi ba suma mba ma ngeen yokku ñëw client bu ci dem garal ñu dagg sa xol bi lu tax ngeen yokku pass pour lan client yi duñu kaas indi sa fukk daas da nga téye sa café kaas karama bala fi dem dama yow duñu jubo xol naa ba xool mais da nga bëgg a sama jikko café bi neex na waaye na ku ne si sa domaine Touba la tase ay li nga bëgg a yàpp sa oto bi attanu ko dërëñ nga ko ba lépp taas na chauffeur yi dakkal surcharge bi booy bis du paquetage tali bi xatul xol yee xat mu ñu te leen dawal baleen seen caaxaan yi man di àndul ak dawal oho oh, ki dañu rax nekkate am nañu sikk cheur ki ma bëri wax coow li yàlla na ma jik ma jàngal sama métier yàgg naa ko teg si temps vitesse yi laay ñëw rek dugal ni bal bu ñu teg si camp. cuqal mu suus ma ne dugalul puus yaa nu gën a muus keneen du tus yow rek fi aay chauffeur nga laf bouche. aca volant banque sa loxo du war gay ne nga ay nit nga yab foo yëgee gëmmentu rek séeréel. ñii hmm, dañuy fontu rek. e Amadou Yàlla. defar nga sa bagage. ak saa. Ah, seen café Jalibatu Serigne Ibrahima Touré di les avec cette carte bu mag bu nekk ci Massar affaire de grand vente d'habillement DSS exploitation de carrière, location de voitures, terrassement, boutique Hewell, Jeng et Frères vente tout article de vaisselle à Kermassar. Nyolen Donmay, c'est une série Boutique Olay Ilatoba.